ci ñun muy Lamine Samba mu bëggoon ñun ñëpp ñu jóg ci accueillir. oui. président. extra des. mais Pape na ñëpp jóg. mais Lamine di jukki. waaw ah. di jukki balaa. en direct wala en direct laa bëgg nga jukki ma. en direct. mon ami mon frère. Pape Bégué. ça c'est ça de de Pape Mm-hmm. oui ça c' est ça c' est l'ami du Sénégal. mais Pape oh, Maye fexe na. ma sœur fexe na ba ëppale ñu ci Lamine Samba. ku ñëpp yu xëccoo. ku ñëpp di xëccoo Sénégal yëpp di ko xëccoo président di ko xëccoo. dëgg la dëgg dëgg Pape Maye fexe na ba ëppale ñu ci yow. nuyuwaale ko rek. président Macky Sall nee na ma barki démb ana borom dàq bëgg rek ana borom Ndakaaru. waaw astafurlah ak Kampala. <laughs> président wax ni. waaye du yooyu ki tax nga gën koo war te gën. loo koy def sang la wallaahi waaw waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam xanaa dégg la la famille. oui mais xanaa xamoo télé day xajam. dëgg la télé bi mu dugg si. maanaam mu tubaabe. télé day xajam am tuuti suuf. cere sax balaa muy neex am tuuti suuf. mais télé day xajam quoi. xajam. Pape man bëgguma lu. waaw waaw dama bëgg lu xajam quoi waaw jaxasoo. même sama kër des fois dañuy bàyyi tuuti affaire yi traîner tuuti. baax na tuuti jëlal lii kii wala day xajam télé. voilà. te eh, la day xajam dama xaw a tuuti day xajam na xajam <laughs> na xajam <laughs> alors Lamine ñu ngi jëm ci euh, ñu jëm ci lu am solo ak euh, GFM fan yi yëpp ñu ngi koy waxtaane euh, ñu ngi koy waxtaane ci émission yi di ko waxtaane surtout ci jongante tey nga ñëw pour fàttali ko téléspectateurs yi c'est vrai que fàtte xaju fi ndax booba tey télévision Futur Média mu ngi ci di tàkkusaan boo xam ne suñu tàkkusaan la waa ji dafa ne bés sa bés dëgg la ku nekk bés bii du bésu kenn bii suñu bés a GFM Entertainment moo dugg nag ci làng gi ndax gis ngeen bi mu fi duggee ci diggante bàll gay ak Eumeu Sène ni làmb ji meloon mooy le choc merci bii nag mooy suñu deuxième saison ñu sóobu ci làmb ñu nar a dem a Demba mhm. yóbbu wuñ fa nag n'importe quel combat. déedéet Ndiaye mhm. dañu jël nees boole ko ak Sa mhm. parce que ñëpp xam nañ ni fi ñu toll nii nees ak Sa Thiès fi ñu toll du seen place ci làmb ci. ndax borom bituku mbagg boo gis boo xaree xol bi magasin bu rëy nga cee fekk. fi ñu toll nii Sa moo wax ci jëmi boppam ñëpp seetaan nañ ko démb ci télé bi. ne man sama objectif mooy képp ku daan Balla Gaye 2 ma daan la. moo daan Balla Gaye 2 Bombardier. kan moo daan Balla Gaye 2 ma seetal kan moo daan Balla Gaye 2. Modou Lo ñaari yoon. dama ne kon booy xool Sa Thiès xelama xalaatam. li ci nekk yëpp mooy mu daje. ak ñi nga xamante ne nii. ñoom ñoo ñoom ñoom ñooy ñoom ñoom ñoo daan magam. kon il aspire à être roi des arènes. nees ne ko. parce que nees toog na trois ans bëriwul. nees ne ko ndox mu taa. taawaat taawaat soit sànq maa ngi lay wax saxayaay moo mag nji mu bees. Mhm. bi ma la koy xaw a décortiquer tuuti après élément ñëw. saxayaay mooy bu nawet jotee ba ñu góob di diri dugub ji ba gerte gi di ko yóbbu. loolu noonu di fa ruus noonu bu ko fa nawet fekkaatee wala taw bu ne loolu mooy muy njëkk sax li ñuy saxal mhm. mu ne ko nag ndox mu taa ñetti at bu ci dugal sa loxo xam loolu ci nekk te nees dafa freiné ñaar wala ñetti xale yi dàq bëri ci làmb ci Papa Sow ak Ama Baldé nees dafa leen a daan et duma leen daan leen ah. toog trois ans bëriwul demoon États-Unis ñëwaat GFM entité mën nag def ci moyen te Pape Cheikh li jafe ci làmb ji moom la GFM entertainment am moom la Futurs Médias am mooy sponsor ndax bi ñuy débuté bi ñuy débuté làmb ci bi ñuy débuté làmb loolu lépp di koy indi rek mooy discipline bi ñuy débuté làmb ji di monter combat bi Charles fay mooy coordonnateur chef FM entertainment ñaari sponsor la ñu amoon mais tey ci biir comme campagne de communication bi ñu def ñetti sponsor wuy si waat nañu euh, GFM entertainment muy Lonas Patisen ak XL booleeg Sénat assurance mi nga xamante ne nii moom la ñu amoon ak l'écran kon am na cinq te biir na ma ni balaa le le neuf dina am yeneen yuy ñëw comme ñun fexe nañu ba dugalaat sponsor yi ci làmb ji ngal bu ko violence dàqaat ba mu dem parce que c'est très rare parce que loolu moo nekkoon challenge bi loolu moo nekkoon challenge bi merci que ça se voit que nii dëgg-dëgg ku mu neex buuxante ku mu neex wax ni man la ku mu neex wax lu la neex mais sénégalais yi fit yu média la ñuy seetaan loolu la yàlla dogal loolu suñ borom moo ko dogal mhm. su Ndour bu ci gisee boppam daanu Pape Cheikh bu ci gisee boppam daanu Lamine Samba bu ci gisee boppam daanu mhm. borom lépp borom fépp borom ñëpp du suñu borom moo ko dugal ci xolu sénégalais yi mhm. loolu amul sax werante parce que la preuve li ma lay wax nii seetaan nga làmb yi fi am yëpp c'est bien beau neex na surtout démb lamb Assane yi fees na mais dimanche nga xam ni lépp dëgg kuy ak kuy ajjee ko suñ dëgg la Lamine man am naa benn question rek est-ce que erreur li du ma ne erreur la sax peut-être démb ñu bari peut-être kontaan nañu torop ci làmb bu démb ni mu nekkulee direct mhm. est-ce que GFM direct la naka def wala du def direct waaw man de dafa am lenn lu ma la bëgg yëgal mhm. je ne serai jamais plus royaliste que le roi mhm. Assane Ndiaye moo tëgg combat am signé woon ak benn tele bu ñuy wax Sen TV ñoom ñoo xam lan la ñu waxante ba teg ko en direct pour man. différent Ah, mu def ko différé te tardivement dans la nuit peut-être stratégie de communication la parce que Assane Ndiaye mu ngi ne bu sponsor yi ñëwul ñoom li ñu ñàkk moom ñun moom la ñu am moom itam déedéet Ndiaye déggoo ma de. Eh, Ndiaye déggoo ma dama ne ñoom li ñu ñàkk loolu la yàlla jox. yàlla buñ ci gis suñu bopp. mu sponsor. ku la wax ni LONASE du wax ni may naa combat bi en direct. Mm-hmm. ku la wax ni Patisen du ko wax. ku la wax ni XL ak Habib Biaye du ko wax ne may naa ko may naa ko en direct bu mu la bu bu la bett. parce que ñun du ñu ay structure nekk ma fii pour def promotion groupe bi mais dama ne ñun li ñu gis doy na nañu benn beneen bi ci topp mooy Assane wax na ni Siteu amul droit wax ak kenn te man amoon naa avalu Siteu. pour mu dugg yeewu leen tey en direct même Zos nga saalikat dañ ko koy nangul parce que c'est son événement mm-hmm. absolument parce que tey nit ki xamuloo yan lan la dépensé ci ci ci ci ay moyens ba ñëw nga koy tegloo li wala nga koy teggiloo leen man li ñu fi indi ñaar mooy benn pap mm-hmm. ñàkk yàpp askan wi parce que mënuloo di toog naan fii la mburu mi tàngee fii lay xoyom xoyomee fii la baaxee fii la tàngee fii la croustillant après yow nga toog ñu teg làmb dafa am lenn loo xam ne dama ko bëgg en direct ñu teg làmb mu am mardi nga toog mercredi jeudi vendredi samedi dimanche dimanche jongante wane ko lundi mardi l'œil du tigre wane ko day caduc mm-hmm. élément yuy ñëpp la mm-hmm. loolu moo tax ñun ñu choisir yeewu leen pour ñëw décortiquer décortiquer wane tuuti ci combat pour bañ a yàpp sénégalais yi parce que munuloo toog naan fii la tàngee fii la lieu ba pare après toog yore ay élément quatre jours après nga ñëw di ko teg fekk mburu mi fanaan nga dugalaat ko ci fuur day lax génnee mburu mi day lax léegi nag damay proposer Pape Pape Cheikh. damay proposer Bouba Ndour directeur du programme Ndiaga Ndour directeur de la télévision Mamoudou Ibra Kane directeur général Bijou tu m'écoutes quand je parle. Mamoudou Ibra Kane Pape Cheikh tu me regardes quand je parle. d'accord Mamoudou Ibra bu làmb amate lundi mbala mardi wala mercredi kaay ma proposé leen benn rubrique boo xamante ne cinquante deux minutes bu làmb tasee lay tudd déggal lii bu làmb tasee parce que léegi làmb dootul samedi ak dimanche rek ah eh, day am lundi mardi mercredi démb 4 avril la woon ah ah léegi imaginel démb bi Abdou Aziz Mbaye jeexalee uh-huh. man ma ñëw uh-huh. ak benn rubrique buy tudd bu làmb tasee ah, ñëw teg ne leen mbokk yi comme làmb am na làmb tas na xool leen démb làmb amoon na démb amoon na démb moo doon 4 avril moo doon zos ñu ne plateau spécial quoi ak non donc rubrique bi noonu la lay tudd bu làmb tasee day fekk day day fekk yow Bouba Ndour du la woo ne la non ñëwal yeewu leen pour décortiquer parce que soo yoree éléments yi dafay caduc mm-hmm. doo doo changer programme chronologie Pape Cheikh mm-hmm. da ngay teg rek benn rubrique boo xamante peut-être rubrique boobu mun na toog trois mois quatre mois yoo xam ne du exister mais bis boo xamante ne nii làmb am na nga teg sa rubrique bu ko benn télévision sàcc mm-hmm. ba damay ñu teg ko dem buñ ko tegee ñëpp Sénégal yëpp xam ne ñun fii lañ ko jëlee. loolu rubrique la bu làmb tase ah? <laughs> mais ñoom leen ah waaw mais d' accord euh, nañuy créer rek ñoom ñuy jël. Hmm. yàlla na nu yàlla may xel mënuy créer rek. ñuy jël dafa am benn waay boo xam ne doomam dafa gaañu woon caamaas. ndeysaan doomam gaañu woon ci lakk. ma ñëw di wax ak moom di wax ak moom consolé ko ba sonn kiiwul ma ne ko nanga sant yàlla jiwukaay baa ngi fi njaq lu toj moo gën ndaa lu toj hmm. waajur yi nga xamante ni yàlla may na leen ñoom ñoo am doom yi ñi ngi fi njaq li moo dem yàlla leen yàlla may lu ñëw toog amiin ah, loolu yàlla nañu yàlla may xalaat boo xamante ni nañu xalaat rek nit ñi di yóbbu. amiin gis naa fi ay boy yoo xam ni ci télé bi lañ nekkoon fii. Mhm. maa ngi leen gis euh, seen TV ñu yor caméra. di lii nii ma ne waaye xool rek ñun ñoo ngi créé gars yi di jël quoi alhamdulilah rabil alamin alors euh, balaa ñuy àggali ci euh, combat wu 9 avril bi euh, Nees ak Sa Thiès Ndiaye préparé woon nga ci kanamu Lamine laa bëgg ñu waxtaane ko mhm. Siteu ak Zos waaw Siteu ak Zos démb lañ doon lañ amaloon seen combat bu mag mën nañ ko jàppee combat bu mag la parce que Siteu dafa nekk ci ascendance bu doy waar du ma wax ci kon damay maa ngi wax ci contrôle Lamine euh, daal di daan euh, Zos loo xam ci 57 secondes la. Hmm? démb nag bu ñu fàttalikoo ni 57e anniversaire ru. Sénégal euh, indépendance bu Sénégal ah, mu tombé bien 57 secondes la que ki nga xamante ni mooy Siteu daal di dóor mu daal di daanu. mën nañu seetaan la Kutubu la ba dal na Zoss ak Siteu ñu ngi lewtoo Zoss ak Siteu ñu ngi lewtoo laay laay la la Siteu duma na ko Siteu door na ko door bu dal waaw Siteu door na ko door bu dal la laa ji Cerno Siteu ñu ngi damantey ba si ta dóoraat na zoltan la tànk bañ na ko këf ngi dóor ñu ngi xeex gis li ma la waxoon rëjante nañu xam ñu ngi xeex waaw si ta day dóor di gëma waxoon naa la rëdan nañ rëjante zos il est dangereux laaj laa la laa dóor na ko laaj laa la laa dóor na ko xoola eh, ñu ngi xeex eh, eh dóor na ko daanu o blessé na ko o oh, blessé na ko ci bopp bi o si da dóor na ko mu daal oh, voilà mu ngoog donc combat bi démb la woon tëdd bi moo jaaxal ñëpp ah 57e anniversaire u indépendance bu Sénégal en 57 ñaata en 57 secondes mu tëral ko c'est grave ah alaaji Lamine euh, Lamine kay laaj la ñuy jox directement xam nga xam nga coup de poing bi lan la ah, ah. et percuton menton la eh, waaw li saf na de du damm mm-hmm. du fëq du foxoj kenn du ko tabax waaye di nga toog trois cent soixante cinq jours yoo xam ne doo sax ci hypercute boobu rek ci hypercute bi non c'est vrai Pape boo xoolee heureusement que l'arbitre dafa am benn flair boo xamante ni soo bàyyee image yi na sos kon sinon doy noyyi suuf si ah xool leen arbitre bi geste bi mu def dafa dafa ñëw taxaw non arbitre bi dañ ko war a takkal comme ni ñuy critiquer arbitre bi dañ ko war a takkal médaille parce que sinon zos kaawate na zos mhm. mu daanu dafa xam benn arbitre bi dafa ñëw wëlbati ko. parce que su ko bàyyi woon ba mu nooyu suuf si. non catastrophe mun na am. ça arrive souvent ci mais nag go li gauche bi Siteu dóor Zos. dóor na ko Zarko. Mhm. waaw non dóor dóor na ko Zarko mais xam nga Zarko dafa groupe bi tuuti. waaw dafa dafa dafa groupe tuuti. mais Zos booy xool lii dal na ko contre euh, Bathie Seras. dal na ko contre Guy gi. Mhm. mais lan mooy kii moom cest à moom du amul protection. day ubbi garde ah. ba pare dama ko yërëm. pourquoi merci jërëjëf. lan mooy avenir am actuellement maa ngi ñëw ci yërëm bi Pape. Pape Zos il se réclame parcellois Zos parcelle la dëkk ni Modou Lo dëkkee parcelle. Siteu Lamsar la dëkk. boo xoolee treize mille spectateurs yi nekk ci lamb dix mille yëpp Siteu moo leen fa indi. kon waa goxam jàppale nag ko. mais xale bi démb dafa wéet Zos. Hmm. bi ñu nee ku ànd ak Zos. képp kuy reporter rus nga képp kuy amateur rus nga parce que wuu ngay dégg oh. ana waa parcelle xale bi si yéen lay réclamé wu mais biñ ne ana ki ànd ak euh, Siteu ah non nga dégg Siteu Siteu Siteu la Siteu si Siteu la stade bi di riir. mais loolu Pape reporter yi di wax naan wu réew la. wu réew la laa la illallah mbëru réew la xale bi wéet te Zos amoon na mbooloo. Zos mm-hmm. bul fàtte ni. Euh, gala bi Gaston Mbengue tëggoon. Mm-hmm. moo ci finaalu woon. Mm-hmm. moom ak Lac de Guiers. bijou loolu doo ko fàtte Zos hélicoptère moo ko jëlee parcelle. yóbbu ko stade. Zos dafa daan toog mais qu'est-ce qui s'est passé. merci beaucoup. waa parcelle dañ ko mere. te mm. waruñu ko mere. c'est vrai koy. maa ngi ñëw ci xam nga ñun dañu ñëw pour toj yàq. Mm-hmm. Pape Cheikh waa parcelle dañ ko merci dañ ko mere te waruñu ko mere. am na oto léegi. daf ko def vitre teintée daf nuy romb du nu nuyu c'est pas la raison. pour man loolu du raison. parce que nit ki tey am na fooy toll foo xamante ni nii du ma ne nit ñi dañ lay gis tout le temps mais dootoo amati loolu temps. parce que sos souvent il est entre les quatre avions mu ngi. dem di ñëw et puis dëkkul dëkkatul parcelle mais yaayam ak baayam ñu ngi parcelle. Mm. waa parcelle lan moo tax muy seetaan sos. bu fekkee dañ ko mere woon nan ko baal. Mm-hmm. bu fekkee daanuñ ko jàppale nañ ko jàppale. parce que lii tey ngeen baal ma gàcce parcelle la gox bu toll ni parcelle nga xam ne bu muuduloo jógee àla ilaha illallah da nga naan déedéet ñëpp mobiliser du yàlla mooy maye d'accord mais pas à quanta à ce que ñu naan jos indiwul sax ñaari clando ba pare sax ñu xool ko que ñoo moom moom dafa man woo ko man woo ko man woo ko man jongante da ngeen ko fàtte. Mhm. bi ñu defee euh, place de l'Obélisque mu ne waa parcelle ils n'ont pas compris. ndeysaan oh. bu fekkee ñàkk jàppale nañ ma baal. Ah, bu fekkee ni ñàkk nuyoo déedéet damay nuyoo. mun maa dugg kër gu nekk jox leen loxo. waaye nañ ma baal. Mhm. parce que man aw ma fenn fudul parcelle ma def benn campagne de communication fu ma romb peut-être di leen wax loolu nañ ko jàppale pas pas dañuy. dañ koy jàppale pour mu pour mu redresser waat mais dafa amul jàppale. garga mboose loolu dal na ko. Mm-hmm. Garga Mbossé combat ma Boy Niang bii mu bii mu bëri nii mm-hmm. amul jàppale mm-hmm. dëgg la ndimbal na ca fekk loxol borom ku liggéeyul doo fayeeku waaye ki dem ba ne baal leen jéggalu leen jàppale yàlla sax dañ koy tooñ a jàppale Ndiaye voilà Lamine maintenant Zos lan mooy avenir am ci ci ci ci comme ci combat yi ah bii mooy quatrième défaite am ça va être dafa jógee ci tournoi TNT Tapha daan ko guy gi dóor ko mu daanu Ama Baldé daan ko Siteu daan ko défaite de trop mais bu ma doon moom du ma bàyyi parce que dafa tàmm moom saa yu ne làmb rek mu ne damay bàyyi damay reculer delluwaat samay mbokk jaral na ma sax def proximité biir parcelle du dugg ci kër yi benn par benn ki comprendre loon ma comprendre loo ko ki jàppul woon ma jàppaloo parce que nit bu jàpp ba jékki-jékki bàyyi am na lu tax mu bàyyi. dëgg la am na benn campagne bu ñu def ci moom xaw dugal ci bopp xam nga Sénégal dañuy dugal Pape Cheikh nii la mel Pape Cheikh nii la mel. waaw waaw dafa fuy léegi bu duggee ci otoom lii te ils n'ont pas compris hmm. ku wal mburu di nga tudd ne na def campagne de sensibilisation duggaat ci koñam bu duggaat ci koñam jàppale waat waa koñam waa koñam jàppale ko parce que parcelle bu mobiliser xajuñu ci kaw kenn mais Siteu n'a pas démérité surtout maa daan sarko maa dóor sos mu daanu mhm. na gars yi def attention de mhm. xale bi sew njarnde la mhm. luy loolu Lamine cest dafa jekk ci sew te am yax moom la ñuy wax fausse maigre waaw waaw moom la wolof di wax sew njarnde da nga koy gis naan booy bi entraîné boo duggee ci moom xam ni Siteu dugg ci lu gën ëpp ko mboq dugg ci sa musiba kenn ëpp ko doole uh-huh. Uh-huh. Siteu kenn ëpp ko xam-xam uh-huh. waaye nag waaye nag mooy doomi borom ndakaaru astafurlah ak kafe mais maa ngi ko dégg mu koy nuyu dégg na dafay sant Serigne Touba jaarale ko ci Pape Mayel Diop parce que da koo ah, jàppale ah moom loolu la wax mais moom il enchaîne les victoires mi ngi ci douzième onzième douzième victoire moom wala ah, mi ngi ci. waaye nag Max Mbargane xam-xam bi mu am. Uh-huh. Siteu pour man dafa war a dem. Uh-huh. waaye dafa war a def ni Balla Gaye ak Modou Lo ak Eumeu Sène mm-hmm. def faire le large autour d'eux mm-hmm. muy bëri ak seeni moroom mais gis nga bi ñu ko brûler les les étapes mu dem dafa dellu siwaat mm-hmm. loolu moo xawoon baare Ama Baldé bi muy jël nees dafa teeloon pour man na rampe pour man gisal naa ko combat bu neex. Hmm. combat de loo koy conseillé non dama combat de xaw ma lan relance wala combat de xaw ma montée mais lu ngeen gis ci euh, site guy gi. yoon la waaw ah, ko <laughs> guy gi dafa dóor sas mu daanu. Siteu dafa dóor sos mu daanu. mais ñoom point commun ñoom ñaar bu ñu dajee loo loo gis ci boobu combat yo li dóorante rek xalangoon noonu ñoom ñaar la jógee kii jóge ci defet dégg dégloo ma de. dañu bokk adversaire dóor kii mu daanu kii dóor mu daanu. mais ñoom ñaar bu ñu dajee. Mhm. dinga xam ndax Siteu dafa war a yéeg wala dafa war a desaat tuuti ci ndaw guy gi ndax dafa war a arriéraat xam ni catégorie am teewagu wala lool mais. site guy gi non commencé. Boy Niang nag Boy Niang dafa teel walla teel. Boy Niang pour man Balla Gaye teel na. ci site laa wax. Euh, waaw pour man. gisal naa la beneen combat bu neex ci ci euh, ci ci Boy Niang. xanaa xamoo Pape Cheikh mbër en général ki mu laaj soxlawu ko. <laughs> en général. Mhm. mbër jox ma waay jox leen ma. diw euh, jox leen ma diw judo mais imaginel tey. Mhm. Sa daan mbaa mu daanu. ñu jël Sa boole ko boole ko ak. Euh, Boy Niang boobu combat loo ci wax. wala booy ñaŋ booy Niang Malick ñaan numéro 2. wala Boy Niang Malick Niang. ak ah, Boy Niang. Malick Niang Boy Niang. dina ñange loolu ku ci daan boo tàllal loxo du la ne déedéet. day ñange alors euh, léegi dama bëgg ñu euh, teg euh, bande annonce su 9 avril bi Nees ak Sa di combat bu mag boo xamante ni GFM entertainment moo ko tëgg di lu àddina yëpp di préparé. ma dem na këng waxi mag dem dañ tàlli lu waay doon jaay léegi tey mu lamb lamb dikkaat na GFM entertainment indiwaat ko ak affiche bu doy diggante Ness ak Sa Thiès bésub juróom-ñeenti fan ci weeru avril atum 2017 ci stade Demba Diop combat bu doy ci diggante ñaari xale yu xarañ am fulla ak fayda te saf xorom Ness la baleine de kenn dootu ko présenté te mën na bëre day dóor day daan day sogg day jàggi tey bu bàkkoo rek ñu ne moom la xale bu fi la champion xam kan mooy Ness ndax da lay daan ana Sa Thiès Sa Thiès rakki Balla Gaye 2 man quadruple lees laa ko tudde moom Sa mooy bête noiru lamsaar nee na nes ci man ngay jeexalee coow amatina ñan ñoo ko indi xanaa le prince de Guédiawaye doomu Double Less rakku triple Less Balla Gaye 2 tombeur de site ak la baleine de lamsaar l'américain le frein des jeunes seen diggante dina metti dina tàng dana safta dana neex lool combat bi nag jolof la ko jagleel dëkku Alboury Ndiaye jàmbaar ju mag yi nga xam ne do na stade Demba Diop ci diggante Nes ak Sa Thiès ndaw lu sës ñu ngi ci ànd ak suñu sponsor l'écran di sponsor leader Sénac passurance ak Patisen mu ngoog El euh, Hadj Lamine Samba kon 9 euh, avril euh, yan matuwaay la télévision Futur Média jël. Charles Faye wax na ni yombal nañ billet yi. Mhm. Pape imaginel découverte. Mhm. lu sol ni Sa Thiès ak Nees nga ne découverte 2000 francs laa. Mhm. ñeenti téeméer ñeenti téeméer baax na. baax na baax na nga ne. couverte 5000 francs. baax na waaw baax na. Hmm? dafa am ay prévente yooyu. teel a jënd waaw waaw loolu xam naa ni campagne de. sensibilisation bi. Mhm. Charles dina ci ñëw. parce que le 9 ñëw na ba pare. waaw le 9 dimanche bii la dafa am dafa am lu am solo loo xam ne moom la ministre Aly Ngouille wax. bu baax mi woo woo Sa woo Nees. Ablaye ma ci kafe gi. ne leen su ma wootee trois jours avant combat bi ma woo Charles fay mu ne ma ay billets des na. Mhm. dinaa jënd billet yëpp jox ko askan wi ñëw dugg. Aly Ngouille Ndiaye par taw toon humiliation la si Sa humiliation la ci nees. Ah. parce que dañoo war a. xanaa xamoo amateur dafa am. fan si club am. Mm-hmm. am ñoo xamante ni ma riirandoo rek la. Mm-hmm. Aly Ngouille moo ñu may billet dañuy dem làmb ji ñoon mm-hmm. duñ tàccu kenn. te ñëpp la ñuy yuuxoo. ñooñu maag ñoo may am. yaa ngi dégg seen politicien bi moo leen fa indi te loolu dafa làmb ji dafa war a mën a moytu. bu baax a baax mais dégg naa moom lu am solo. cest à dundal làmb mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi nekk ci banlieue bi waaw ñoo xamante ne ñooy ñëw fay seen eh, ticket mu jaral leen mu jaral leen ko ñu am ay supporters bu mbër mm-hmm. yi mën nañu wax mën nañu wax mm-hmm. mais Lamine Samba bon Lamine Samba koo xamante ne mën nañu jàpp ni boo xam ne dafa nekk ci la wala Pape Cheikh day ñëw de woo Lamine Samba oui sama invitation sama invitation ah, c'est-à-dire dëgg la dëgg la gis nga man gis naa mbër mm-hmm. du ma tudd turam bu ñu ah. fay 15 millions mu jënd 7 millions yëpp billet déedéet man gis naa gis naa mbër mu ñu fay cinquante million mu jënd vingt millions billets man gis naa ko jaay ma vingt millions billets trente millions yi nga jox ma ko. gis naa mbër mu ñu fay cinquante millions dimbalee ko trente million mu jël ko dugal ko ci poosam lekk ko. dëgg la. nga xam ne stade day ñëw ku ànd ak biisu ñëpp ne wuu. te loolu dafa ñaaw pour man. kii dundal kii njëkk dundal làmb muy mbër mi hmm. sa cachet war nga ci jël jënd ci ay billets gars yi jàppale la loolu mooy li nga xamante ne moom mooy moom mooy li wóor hmm. waaw voilà Lamine merci en tout cas kontaan nañu lool ci euh, sa teewaay tey ak ni nga ñëwee pour ñu waxtaanee euh, combat bu euh, mag bii nii ban message ngay jox sénégal yi nga xamante ni ñoo koy préparé c'est vrai que làmb ngi am mais làmb gëj naa neex te bu soobee yàlla dimanche dina neex Pape Cheikh nga hmm. yàkkamtee xeex dëgg la te boo ñëwee dimanche. Mhm, incha allah di nga xam ne ñun Futurs Médias lu ñu laal moo gën lu ñu laalul. Mhm, mhm. ñu ngi woo ñëpp. mais ñëpp teel a ñëw ñu seetaan làmb ju neex ambiance bu saf drapeau Jolof la drapeau Linguère la waaye drapeau Sénégal la ñaari mbër yoo xam ne ku ci daan déclenché nga diggante Sa Thiès ak Nees ku ci daan déclenché nga jëm nga ci kaw ñu ngi jégalu nag ci li ñu xaw a euh, yàq tuuti kon fil conducteur bi eh liñ doon bañ rek mooy toogoon jaay toogoon Euh, ba dimanche li fi wane lamb ji mu kajug waaw loolu la ñuy jëge may nuyu benn xaritu Cheikh Kanté wax mhm. da koy liggéeyal bu baax a baax sama mhm. rakk la mhm. euh, Cheikh Joxaane académie couture nekk Côte d'Ivoire euh, su ngeen bëggee ñu may leen billet ngeen dem Côte d'Ivoire bu ngeen jógee Maroc ngeen dem Côte d'Ivoire yow leen Cheikh Joxaane moo la ko jox ngeen def ko spécial euh, yeewu leen foofu nga xam ne moom mooy ci Côte d'Ivoire xale bu baax la xale bu am njëriñ la mm. dama doon nuyu benn paa su ma ko nee papa ziar naa la waaye ziar naa la foofu laay tàggoo ziar naa la mu ne ma saa yoo ma nee <laughs> rek saa yoo ma nee ziar sama yaram daw xale du ziar mag ci maani poro mm. ziar day ànd ak dara wax na dëgg Cheikh joxaale mag du fecc yàlla fu mu lay ziaree dara waaye kenn du borom Dakar. astafurlah laa ilaha illallah ak kafe Pape Mayel nee na. ba Pape Cheikh di def rajo nekk ci rajo gune yi. moom xamoon na ne xale bi dina toll fii. moom Cheikh Diakhoum moom moom moom ko wax. c'est bon père. dem na tàggat na ko xam na ko. sama papa la sama papa la jërëjëf. kontaan na Ndiaye jërëjëf. yëpp demagum Cheikh ko jërëjëf. extra des kii nag mooy. kii mooy mooy borom. jox kii kay moom ci yéen la bokk. mooy non bu toogee fii sax day lambe. dafay dafay day lambe kii moom day lambe kii xam nu mu tudd. extrades. extrades noonu laa ko mënee di. <laughs> merci beaucoup Lamine Samba. rendez-vous quand euh, rendez-vous le 9 avril. bu soobee yàlla dimanche. stade Demba Diop. ñun ñëpp nga fa. ay Pape. bu mu dugalee élément léegi nii nga jukki ma. ay Pape Père ni nga dem la 9 avril. ay Pape di euh, gërëm bu baax euh, Pape Mayel Diop. borom euh, di borom Dakar. ah borom Dakar déedéet jox hymne bi. borom Dakar astafirullah la ilaha illallah ak kawe. ak kawe d'accord. ak Cheikh Jokalante ak Cheikh Jokalante. académie couture Côte d'Ivoire. gërëm bu baax. Eh, euh, bisu collectif. di gërëm eh, bisu collectif ak Cheikh Jokalante. bisu couture. <laughs>